li nga wax dëgg la am na tegaloo tegaloo tegaloo ci muy lu metti nag loo xam ne ñu ñi fi nekk suñu alal nekk fi ah, di fi fanaan jaaxal nañu trop te fi mu ne ku tëdd sa xel du dal ndax ah, li xew barki démb ci espace su 15 jours ñetti lakk am na fi benn ñaari ci guddi la benn bi ci bëccëg ci ah, yaakaar naa ne nag lu mel ni boo amee taxaw seetlu war na am ba xam lan moo koy indi. parce que lakk gii fi mujjee am boobaag lay war a mat 15 wala 17 jours ba nëgë ni xamuñu lan moo ko sababam te yaakaar naa lakk bu amee li ñuy wax enquête war na am bañ xam sabab bi lan la ci vingt 24 heures wala 72 heures maximum yi ci topp war ñu génne benn rapport wane ni lii ak lii mooy origine incendie bi amut. ba ko jiitu woon tamit ci 2020 bi ba léegi xamuñu lan moo ko waral kon yaakaar naa buñ tolloo foofu jot na nag ñun ñii di ñu taxaw xoolaat suñu bopp bu baax a baax. ci mbir yi ba xam lan mooy waral lii parce que bàyyiwul kenn ñëpp ci ciy parce que ñi ñuy wax ñu nekk ci kaw talibi bi toujours ay victimes la ñuy doon ci mbir mi. te yaakaar naa loolu lu ci bëree bëri manque d' organisation lay eh, doon te organisation nag kenn bañu ko dafa tolloo nag nit euh, wala citoyen simple dafa mënta organiser boppam mënta organiser moroomam organisation ñi ngi koy xaar ci autorité locales yi loolu daal moo ci suñu xalaat bëgg nañ daal ko ci jàpp bu baax a baax. Euh, li ñuy wax ay bourses incendiées fii ndox mi nekkit ñu dekkalaat ko ci marché Ocass ba lu mel ni amee ñu mën a gaaw am ndox li ñuy wax extincteur it war nañoo xool bu nekk mën tamit ñaar wala ñett yu nekk am ko ci seen wet ba lu mel nii bu déclaré boo ñëwee mën a am première secours yi mën a nekk loolu. loolu xam nga ni organisation bi ma waxoon ci lay dellu si parce que buñ sañoon bu dara xewee bu sapeur yi wala nit ñëw dañ am fu ñu fu ñu jaar waaye loolu dañ koy bàyyi ci loxol sëriñ bi ndax ku nekk xam na ni. sëriñ bi jox na ndigal Baay Faal pour ñu lijjantil ko loolu loolu nag ñun duñ ci def lu may sant ci yàlla te lépp loo xam ni tukkee na ci rek ñun dañ koy nangu te yaakaar naa ne sëriñ bi lépp lu ñu bëggal lu baax ci lu noonu lay doon waaye lu gën ci lu lay doon yaakaar naa ne ñi nga xam ni ñoom la dal ci seen kaw ñu commerçant yëpp it moo xam amila nga moo xam tabili moo xam ku mën a doone nangu nga ko bu baax a baax ba jàpp naa ni amu ca lenn luñ ciy contesté dafa tolloog ndigalul sëriñ bi bu jógee ñun dootuñu am xalaat ñu am lenn lu ñuy def loolu tënku ci ndigal li rek. kon xam nga commerçant lañ jaboote ki tënku ci ACIS ak ki ci tënkul ñëpp lañ yemale ku nekk commerçant rek ak foo ko nekkee ñun suñu njaboot nga parce que le président Fallou Khouma loolu lay wax toujours tey jii fekkoon na sax lii fi xew ci diggante moo tax waaye danoon na roon a jóg soolu suñuy dàll képp koo xam ne bokk nga ci lii ñu dem masawu la taxaw fi sa wet leneen li yaakaar naa ne fan yi am na commission yoo xam ne ñu ngi ko organiser ci kaw yaakaar naa maire mi ngi ci ay préfet ak eh, ñi nga xam ne ñoo lan ah, ñoo ŋànk kuréel yu mel noonu pour di recenser eh, nit ñi nga xam ni ñoom la seeni bagage lakk ci lakk yi weesu xay na bu fekkente ni ñoom loolu noppi nañ ci ba xam ñi ci loolu am na ay matuwaay yu ñu ci jël yoo xam ne buñ ko génnee ñun ñëpp dinañ ci jotandoo ah, Cheikh Awa Balla Diakhaté président commission communication assis section Touba